bu baax Ila Touba bi rek doy na exemple dañ ko cee gàtt rek tudd ko waaye président mi ngi liggéey moom mooy géej gi am na ndox mi ngi liggéey bu baax ci Touba jaar na ko de financement DER bi jigéen ñu bari jot nañ jigéen ñu bari ay millions yu bari la fi dugal kon nag lim def Touba bari na militoo na fi ndam yal na ko fi yàlla defal formation yi tamit Touba ñu ngi ciy am ñun nag suñ groupement bi amaguñ ci mais ñu ngi ciy am. xanaa nag mu gëstuñu ndax ànd boo gis yëg da cee neex mouvement bi am na at recevoir ñu xamuñu nag ba xam egg na ci wala eggul ci moom fondation Servir le Sénégal dem nañ fa ay yoon suñuy parrainage fa lañ ko yóbbu événement bi bind nañ leetal yóbbu fa mais yónneewuñ wowuñu ñu loolu tamit neexuñu parce que buñ sañoon buñ àndee ñoom buñ amee bis dañuy yëg ndax ànd boo gis nag yëgante da cee neex loolu moom buñ ne neex nañu tamit neexuñu waaye nag taxuñoo découragé tey lañ gën a sol suñu daal pour jàppale ko ba am ndam